salaamaaleykum mbokk yi tedd yi déglu ñu daldi di dajewaat ak yéen nag ci ñaareeli xaaj bi ci wolof ma di seen mbokk Essa Bokarr Sy te li ñu tax a jóg tey mu di lu am solo luy lendemal xelaat luy lendemal ngëm luy lendemal aada ak luy lendemal gis-gis waaye la la koy lendemal soo moytuwut mu gëna a lendem ne dafay woyoo xam-xam te fekk mbir mi du xam-xam réeralaatee ko tax a jokk gis nga li angale di wax sleeper cell moo di li nga xam ne daf ne tekka tekkaral ci suuf waaye la tax mu ne tekka tekkaral yàpp la muy fagarul mooy su jógee yàq indi jéye na ko magi wolof ya waxe la nag noppi ñaar la noppib ku doyadi walla noppi waliyu bari na lu ne tekk tekkaaral fekk la ko noppiloo du luy indi jàmm loolu bari na waaye li ñu fi indi mu di am na ay mbir yoo xam ne mu nga ca biir réew ma waaye am na ñu ko bet di bàyyi ko di ko seetaan naagu la ñàkk seetlu la walla tayal la waaye loola soo ko bàyyee dafay mel ni cere ju ënna wala mburu mu ënna ba léegi ñu ngi koy oyee cere ba léegi ñu ngi koy oyee mburu waaye du mburu mu baax du cere ju baax kon itam ñi nga xam ne seen xelaat dafay xóot yaatu te xereñ nekkuñ ñoo xam ne loo leen wax rek ñu ne la unhu wala waaw ànd nañ ca déet ñooñu doonuñ li wolof di oyee riitama yóbbuwale yaa kon gis nga ñooña bas waxtu buñ jógee jakarlo ak nit ju mel ni di gaay di oye docteur zakir Akitam itam ay nit ñoo xam ne ñu ngi jóg nag doon ñuy koy tarbiyu àndale ko pex gumba lu loolu nag li koy jur moo di waaraate yay joge ko ci moom ak ñi mel ni moom te ku jàkkaarloog ñoom lañ lay njëkk wax mooy yow lu tuuti nga xam ci islaam wala danga soxla ñaan ñaanam naa fekk na ku jub soxlawul ko te gis nga ku jóg yeete tax lay jóg kooka waruta nekk nit koo xam ne dafay seet li war a neex nit ni walla li war a neex nit ka te yeete sax moo war a njëkk a kaaraange ne kaaraange du mun a sax fu yeete amut lu mun di doon sax lu bari nag nit ñi dañ koy defee yeete la fekk réeral la te balaa ñuy sori ñu ne lu tax sax mënuñooy tàllal suñ loxo ci mbootaay jëmale ko ci mbootaay àdduna ba di United Nations United States of America yeneen dëkk yu mel noonu ñu dimbali ñu ci xeexat mbiri ya te loola lu nit ñi wara bàyyi xel la gis nga ñu ngi fu sori di seet lu sori te gis ca lu bari ne itam ñu bari ñu ngi fi tey masuñu déggaat sax Mali waxuma la Màkka te dinañ la jàngal mbiri Màkka be raw ka fa juddoo xam-xam rek amul loolu docteur Zakir bii nii kenn waxut ne waruta wax way waxinam ak kayam lola moy li nga xamne ne danañ ko ca fekka ñen nañu so waxe ñu na la borom xam-xam bu mag la na ngeen di ko sahaba yi ñu si gëna bari sar saar yañ xam ci alquran ba sax bari li suñ maam alaji malik si wax la so jàngee sa wa su wut sax na mokk rumbu kon itam moom soo ko séenee fu sori dangay defe defee ne li muy jëf ak li muy wax lu ko gën a sell amut waxuñ ne yépp sellut de waaye Gambia ci boppam bañ fa demee seetlu déglu seet seetanti mu di loo xam ne nag dañ cay waxtaan ak mbos mbokk yi am na benn julli aljuma boo xam ne maa ngi taxaw foofa ci nga xam ne mu di Westfield Clinic di seet di seetlu bàyyi xel lu bari loo xam ne su ma fa taxaw doon duma ko doon mën a gis sax waaye bés booba gis naa fa ay ndaw yoo xam ne ñu ngi wekkoo ay baag di waaxu seeni tubéy yaa nga carang seeni sikkim yaa nga bocce te jubluwaay ba ma gis ci ñooña jikko ya ma gis ci ñooña jëfin ba ma fa gis loolu du lu ñu fekk fii ci wàlli toppa diina te leeta laa bëgg suñ mbokk yi yëg mu di lii benn naar benn indian benn tubaab beneen nit gu jóge ko ci Afrika ñun xanaa fekk ñun xam nga li avant lu xaal pulaar yi di wax ñu ne fi tawa mu di ki yeewu fekk soo yeewoo fekk la nga fekk doy la te waray doy keneen te mu doy ñeneen ñu dut yow nga wër di uuti leneen ñaara la dal walla ñett sa xel mi dafa feebar walla jàngu la te nga bañ a jàng walla nga doon koo xam ne yow nag danga doyadi te li nga xam ne moom lañu jàngal ci daara yi ci diina bi gis nga diina góor gi daf ko daan wax mu ne na yore diina satal la bu leen amee diina ndaa ne diina ndaa dañ la koy yenn te do ko mana yenne ko yow kenn te soo ko yenne ko fudu du nekkut ndaa la toj looloo kon di nga gis ne diina bi nga xam ne la ko firile baat ba islam ñu ne di bu ànd ak jébbalu ci borom ba mu di waa loolu suñ la ko jàngalee nga wëlbate ku gis koo xam ne na muy waxee yow waxi xol la la muy suuxat ci yow mooy xol bu fuur bu jóg la muy suuxat ci yow mooy na nga njëkk doyadil say waajur weddi leen te fekk doo ko wax ci làmmiñ waaye danga koy wax ci sa xol ak ci sa jëf te fekk jàngkat ya nekk ca Gambia di woye seen boppa jàngkat xam diina ba itam toog di ko seetaan duñ ko tame duñ ko bees duñ ko set duñ ko settanti mooy gën a tasaaroo ci biir réew mi loolu dafa doy waar loola di jur ay nit ñoo xam ne ñu ne dañuy tarbiyu koo xam ne ca lam leen jëmale duñ dañuy gumbo dañuy téye dañuy du ñooña li leen tax a jóg mooy ut suuf suñ moom ut fu ñu yor doole ut marché bu moom waaye ñu ngay mbubboo islaam conférence bu ñuy dem dañ leen di fay du nekk free of charge su la ne free of charge la sax waxu dëgg parce que borom du fayal boppam air ticket ba te soo demee hôtel ba ngay dal doo ko fa doo doo doo ko defal sa bopp conférence yu bari léegi ci ñooñu yépp business la waxuma laa nag bu ñoom docteur Zakir te amna na Gambien yoo xam di of inferiority complex modi dajé ak sa moromi adama doya doyadil sa bop be nga melni yow do dara te fekk la tax nga doyadil sa bop ci kanamam du dara lu gis ne ki day yéem na ma te nga am say mam yu ko dàq jàng fuuf nga don na lola boba nak moy jéxal patcha bi ni ñu indi len benen